bi ngeen ko defee nii ngeen ko defee yaatal ko ba taal bi yëpp mën cee jëriñ kon liñ ci war a déggee rek mooy euh, bi waa Hizbut Tarqiyyah ñëwee yëgal ko seen njëriñ ci lañ soññ waa Pikine ngir ñu mën a daje xëy na ay coono am na ci waaye li ko waral mooy daa fekkul woon ñu nosu ba sotti kon nag buñ jógee fii nañ xam ne sëriñ bi bëgg nañu nosu doon benn. ndax laa daa wax ne mbooloo mu ne lañ bokk dañ caa war a diisoo déggoo ca takk ko ne aw say ba fuñ ko ne ciriñ bunt fenc gannaaw noonu xasida yi lañ bokk nag na soo te xasida yi kenn gis ngeen ni ko sëñ bi liggéeyee bokk ñu sax ay bëru waaye baxaru yi li muy wuute wuute mën nañoo bokk ab dollu mën nañoo bokk benn gabaat buñ leen jànge kon loolu li muy tegtale mooy nun murid war nañu mën a doon benn te lu def lu dul doon benn doon benn ko gëral Sëñ kon nañu gën a bennoo te lii tax nu bennoo Sëriñ Muntaxa wax na ko ñaar rek la mooy liggéeyu Sëñ Tuubaa bii nañ ci génn suñuy xalaat suñuy xel na ci génn li ci topp nañ ci génn suñuy jikko maanaam lu yàqu ci ab liggéey rek mooy ku ne indi sa say xalaat ku ne indi sa sa jikko am murit bu bëggee am Sëñ Tuubaa day génn xalaatam di jëfandikoo digal sëñ bi waay du am xalaat lu sëñ bi xalaat rek loolu lay jëfe am murit bu bëggee am ngërëmal sëñ Tuubaa day bàyyi jikkoom du am jikkoom day bàyyi sëriñ bi boppam fu ko sëriñ bi jëmee mu jëm te sëñ Mountakha dane mën naa nekk ndax dama cee jaar ba jàll dama ne woon sëñ Moustapha Bassirou boo ma séenee may ñëw na sama xel dal indiwaale mu am xel indiwaale mu jikko foo ma jëmee baax kon man naa nekk nañ jëm fii te Serigne Abdoulahi Gaye bokk na ci seexi sëñ Tuubaa yi ñu koy wax Baye Laye boole woon ak Cheikh Anta Baye nee na daa toog fi kanam maam Cheikh Anta magi di sëgg boof waaye nee na kenn ko sam sam xale nga am lu muy xalaat waaye moom yàlla doo ko may mu kas fu xam lu bari nee na xel yi seen xel yi li muy xalaat dafa mel ni ku jël ay weñ di ko fëgg di ko fëggante ci nopp maam Cheikh bi ndax taxal ko mu ne keroog laa dogoon ne dootuma indi ci Cheikh am xel nee na saa bu ma jubatee bundu kër Cheikh su ma sumee sama ñaari dàll damay rocc sama xel teg ko ci dàll yi bàyyi ko fa dem fa Cheikh Anta ba génn jëlaat sama xel yëpp ku amul baatin boobe war a am pëstee foofu roy sëñ Muntaxa ci rey sam xel rey sa jikko ba fu la murit jëme dañ ko jëm fa ndax murit bu ne daa war a xool boppam daa war a xool moromam ci sëñ Tuubaa te li